di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi di l'oreille du monde TV te bés cloche de notification bi ngir ngeen di mën a jot seeni vidéo à temps réel waaye itam mën ngeen ñu bàyyil seen xalaat ci commentaire bi ndax l'oreille du monde TV yéen la fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi yéen sopp yi yéen xarit yi maa ngi leen di siyaara. yaakaar naa ne gis ngeen li ñu leen di wax ne ñun war nañu ñaan ndax seytaani ak melo seytaani ak jëbu seytaani dafa dugg suñu réew ndax bu ñu toogee ay bandi complot ci kaw nit ñu baax ñi di leen def lu bon loolu nañu góor góor lu ñu taxawu ci dàq leen ñu sànni leen ay jamra jamra fu nekk lañu koy sànnee ci sa biir nekk sa man nga ci sànni ay jamra dinaa ni jox ay tafasil ay détail ci loolu le yi dafa jël réew mi def leen otage mu jël ay bandi ay wuyu yoo xam ne yi maari day taali xoolal ki ngeen tuddee procureur Abdoulaye Diop gaa ñu baax ñi yéen ñi jàng fiqa ndax kii war na taxawati ci kaw suuf kii dagan na ñu teqale bopp bi ak baat bi kii daggan na fu mu toll ñu di ko sànni jamre bi mu tëdd ba nelaw ba jeex yoon may nañu kii ak ñu mel ni moom dootu ñu nekk ci biir Sénégal xam ngeen ni ñii duñu nit dañu yor jàmm nit rek waaye ay seytaani ay mbaam lañu gis yow ki ñuy wax procureur xawma procureur ci lan ñun dañu ñu tuddee procureur ci suñu diini ci suñu yoon mooy ñu jub ñooy moytu ay fen di dajale tuur ci kaw nit di xulli di doxat di def n'importe quoi am na sax kàddu yu ma indil ñu ne dafa def mandat de arrêt contre yenn xale yi billahi wallahi taalaahi dama koy def takraar ñetti yoon dama lay watal ñetti yoon yow mii yow yow mii jël jaasi teg ko ci sa bopp yëkkati sa bopp wan ko doomu aadama yi dafa dagan bàyyil xale yi ci jàmm ba ñuy génni seen réew xamuloo tax tax ñu génni seen réew seen waajur yi xoolal xaj yi ngeen bàyyi xale yi ñuy dee ci géej gi te waa Sénégal am lu ñu mën a dundee am lu ñu mën a yore ngeen war di ko sàccee di ko làq su ngeen koy dugal ci compte yekk nañu ko li ngeen di def xam nañu ko da ngeen xamul ñi ngeen amantel affaire bu neexee yàlla dinaa waxtaan fan yi secret yu bari dina génn moytulee seen bopp makki dofloo ngeen ko ngeen dof ànd ak moom nekk ci yoonu dof di ngeen fekk ñoo xam ne ay docteur lañu ci yoon bi ñu faj leen ñu mel ni ñun ñi ñun ñooy docteur yi incha allah léegi ngeen sànni seen veste yi ak seen garam bu bëy léegi ngeen sànni seen kilote yi bàyyi leen xale yi ngeen di takku ne da ngeen di jéem a fexe yi dañu leen di delloo ci réew mi xaj yu bon yi seen ndey ak seen baay bu ñu juboon yéen ñii di ngeen jub yéen taxu leen tey may wax li may wax waa réew mi lay waxal muñ leen muñ leen yàlla mu ne ku muñ rek dinga nga yegg ci yoonu jàmm kon nag yéen gaa ñu baax ñi maa ngi leen di siyaara ki ñu wax Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine mooy def flash nii rekk yeggal na ne fan yii damay wax ak yeen jàngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.